الله محمد إلى ثوايا بالشقاء ذهبا كل نعين لا أرى من حبا إلى ثوايا بالشقاء ذهبا كل لعين لا أرى من حبا إلى سواي بشقاء ذهبا كل نعين لا أرى من نحبا إلى سواي بشقاء ذهبا كل لئين لا أرى من حباك لوجه من خلق أما وأباك يقودني مقتل بلا إباك لوجه ربي لا ألاقي قرباك وقبل مني اللعين حرباك هدى إلهي غدا لي مذهبا ولسواي من قلاني ذأبا ملكني باق كفاني سجبا ومن قلاني في الأناف شجبا حوى الذي يحبني من تجباك ولا يفارق الخيار النجبا حوى الذي يحبني من تجبا ولا يفارق الخيار النجبا محى الذي كن أبقى تغبا jox ndigal sëñ Ousmane mu ñëw teew mu ñëw fekk si ay mbokkam nee na mu fekk ci sëñ xaadim bu sëriñ Mbàkke soxna di jàmbaar bu baax bu amuk taalibe kon nag bu sëriñ bi teewee nee na kàddoom du ci bari dañ koy dalal rek ne ko bisimilah mbir yépp ngi ci loxo kon nag nee na ñi ngi sant mbokk yépp di ñaanal ñépp képp ku fi teew rek baa nga am moon yéene teew yal na yàlla faj aajo yi yépp ci barke sëriñ bi bokk yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi leen di nuyu nuyoo lislaam muy salaamu aleykum wa rahmatullah di tàmbale nuyoo bi ak siyaar bi nag saahibul fadila cheikh Mouhamadul Muntaqa ayyadahu llahu wa nasara di ko jaarale ci jëwrinam ci ko nekkal Daaru Xuddus di sëñ Ahmadou Mokhtar moom it di ñaan yàlla dëgëral ko ci àggale yéeneem ci liggéeyub Xaadimu Rasuul di jéggalu bu baax kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci kanam suñu kilifa yi toog euh, te mate ko lool nag fa tabarakallah ñu ko mbokk ma waxee di ko tàmbalee ci almujahid Serigne usmaan Mbacké Gaynde Fatma jiite délégation bi nga xam ne moo jóge Touba ànd sëriñ Serigne Abdoul Ahad Mbacké ibnu Serigne Ali Mbacké ànd ak itam ab delegation bu mag te sëriñ Cheikh di sët ci Serigne Dame Abdourahmane Lo bokk ci délégation boobu sëriñ Ousmane Lo ànd ci délégation boobu naka noonu Serigne Dame Loum ànd ci délégation boobu Serigne Ibrahima Dieng ànd ci délégation boobu Serigne Kay Daaru Naxim ànd ci délégation boobu Serigne Cheikh Ndiaye Mor ànd ci délégation boobu Serigne Malick Serigne Malick Diop ànd ci délégation boobu Serigne Ousmane Dieng ànd ci délégation boobu Serigne Mor Gueye Mori Gueye ànd ci délégation boobu Serigne Sawru Mbay ànd ci délégation boobu Serigne Dame ànd ci délégation boobu Serigne Mouhamad Dem ànd ca délégation boobu waaye ànd ak jiite communication ci diwaanul diina Mor Fall mbay ànd ak mboolem techniciens yi nga xam ne ñoo ko jàppale ci liggéey bi ngir ñu saytu si bis bi. biñ ñëwee nag mu fekk fi Serigne Jiili Mbacke Madina moo ko dalal ak Serigne Xaadim Mbacke Mouhamad ñuy ñaan yàlla dëgëral seeni taxawaay diwaanul diina nag. ñu bàyyi xel ne mooy daayiri bi nga xam ne moo lëkkale mboolem këri Cheikh Mouhamadul Moustapha yi kon tey dañu wax ne jotaay bi waa kër Cheikh Mouhamadul Moustapha yépp ñu ngi fi di dalee ci sëñ Cheikh Ahmadou Gaynde Fatma ba ci Cheikh Mouhamad Fadal ibn Cheikh Mouhamadul Moustapha seeni njaboot ñu ngi ci jotaay ku ci teewul sa njaboot teewal na ci kon dañu wax alhamdulilahi rabbil alamina bëgguk Cheikh Mouhamadul Moustapha ma def naa rafet njort ci ne yàlla na bis bi nag ab jullit lépp lu muy def war naa am cëslaay ci alquran mooy waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu yàlla moo sant jullit yépp ñu ngoy ci buumu yàlla gi te bañ a teqalikoo yontu bi alayhi salaam waxoon ne aljamaatu wa rahma wal furqata wal ashaba ay jullit saa bu ñu àndee nekk benn yërmande yàlla wàcc addis boobu nag cheikh mahamadul moustapha daa am nu ko firee woon daf na ay mbooloo saa buñ àndee luñ jimmu sotti saa buñ teqale ko luñ jimmu tëleen moo tax Cheikh Amadou Moussa sëñ Amadou Ndiaye dana ñëw ci waxtaan wi ngir leeral bëgg-bëggub ma Mouhamadul Moustapha boobu am lu ci dolli loo xam ni mooy dëgg-dëgg mbir mi mooy bisub Sëriñ Tuubaa bii dëgmal mooy màggalub Isriina Muharram ñu bari di ko tudd ay tur yoo xam ni wuute naa ak tudd ñenn ñi dañ te mbir boo ko moomalee nit ñooña rek buñ ko moomee day mel ne ña ca des bokkuñu ca mais bis bi bisub sëñ Touba la sëñ Touba moo ko digaloon Cheikh Mahamadul Moustapha sëñ Touba Gaynde Fatma ma waxoon ne ku ki ñaan muur sa bëti xol danga xam ne bis bii mu ñibbisee Touba mooy bis bi gën ci ay bisam bis boobu yi nag bokk yi mu dëgmal te ñépp war a bàyyi xel am pas-pas ci fanaane loolu sëñ Ahmadou Ndiaye incha allah mi ngi ciy ñëw bis boobu nag bokk yi bi mu dëgmalee la ca sëñ Modou Sa dële ak na ko ko sëñ sante woon ak na ko Cheikh Mouhamadou Moustapha bëgge woon Ahmadou Ndiaye incha allah dina ñëw ci loolu leeral leen ko ak njariñ yi nga xam ne déwéle na ko ci kon loolu sëñ Ahmadou tomb bu waxtaan wi daal mooy lan mooy dëgg-dëggi bis bii nu dëgmal ak lan la ci Cheikh Mouhamadul Moustapha santaane woon ak lan la ci doyale woon ak lan la ko ci Serigne Touba digaloon kon loolu daal sëñ mooy ponk waxtaan bi buñ demee ba ci mujj nag bu soobee yàlla kii door jël kàddu kon sëñ Ahmadou Maodo baa ngi noonu bisimilah itam. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi dawi ridwaani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar noo ngi jiital ci nuyoo bi kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal wér ak fan wu gudd li mu yéene suñu borom defal ko ci lu kawe njortam barakat Cheikhul Xaddim di ziyaar bu baax jawriñam ji ko nekkal daarul quddus di sëriñ ahmadul muxtaar mi nekk ci bopp njabootuk cheikh muhammadul moustapha siraar jawriñi kër gi di sëriñ cheikh mbakke madina di ziyaare bokk yi ñu àndal nekk ci jataay bi ñuy kilifa jataay bi di njabootuk kër gi tàmbale ci sëriñ osmaan Mbacke mi ñu àndal ak sëriñ Abdul Xaadir moom sëriñ Mbacke Madina mi nekk ci jataay bi ak sëriñ Abdul Ahad Mbacke Ali ak sëriñ Xaadim Mbacke Muhammad a ngi leen di ñaanal ak wér ak fan wu ba li leen mag ñi bàyyee ñu di ko sàmm yàlla bu ci dara suut yàlla nañ ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ñi doon mébal bi barakati Cheikhul Xaddim ñoo ngi ñaanal ñëpp yërmande suñu borom ak njëggalam barkeb Sëñ Tuuba di sant bu baax a baax bokki njàmbur yëpp rawatina nag comité bi nga xamante ni nii initiative bi ñoom ñoo ko am doon ci dox te muy bëggu Cheikh Mouhamadul Moustapha mi borom kër gi di bëggu njabootam gi mu fi bàyyi gannaawam ñu ne fi di bëggu njaboot gi nekk ci sun gannaaw seen yitte yëpp mooy fexe ba takk kër gi mu doon wenn say te loolu la leen sant mooy seenub liggéey kon ku leen cay jàppale yal na la suñu borom defal lu kawe sa njot barakatu Cheikhul Khadim initiative bu rafet la bu am solo la ñu toll nag ci wàccaayu màggalu ashrina muharram muy bis boo xamante ne nii sëñ Tuubaa lañu koy defal Tuuba lañ koy defee lu toll ci di ko waajal mu bokk ci wàccaay wi boole njabootu njàmbur takk ko mu doon wenn say ngir mébét moom yi nga xamante ne ni moom la boroom kër gi amoon ci njaboot gi mate ci sunuy loxo yàlla na ko suñu borom dogal barkib sëñ Tuuba nu bëgg njëkkante ak waxtu wi yëkkati sunu kàddu laayante biir fàttalante ndax nu gën a am yitte nu gën a farlu nu gën a tegale sunuy jéego ci lëggéeyal yàlla ci gannaaw seexul xaddim bu ko defee nu fàttalante itam ci bis bi nu jëm ba kenn ku nekk ci ñun xam wàccuwaay yi bis bi laaj ak lu bis bi doon ngir nu man koo jariñoo ndax njariñ rekk la feese dell bis bi nag mënee su koo tudd te tuddoo sëñ tuba sëñ tuba nag fardul alam la kenn deetu ko parasanté loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax kon faaw nu tudd tuuti ci sëñ Tuubaa moom yi tudd itam ki mu bàyyi woon gannaaw lan mooy taxawaayam bu ko defee nun dana daal di xam nun ñiy njabootam lan mooy sunu wàccuwaay ci taxawaay yooyu yii ngir mu gën a jëm kanam loolu rekk mooy daje bi Sëriñ Tuubaa coobare yi sunu boroom la yàlla la soob mu melal ko nii mu ko melal amut itam kuñ koy tëkkaleel ci ñi weesu koo xam ne danga naan mbokk Sëriñ Tuubaa ma bokk nangam ci melokaan lii des ci jamono it ku mel ni Sëñ Tuubaa du ci ñëwaat saadu abi naar la bu dëkk ci Mauritanie di nitu yàlla di boromub cër nee na àdduna daa giñoon ni danaa fi indi ku mel ni Sëñ Tuubaa saadu abi ni ko kafaaral fen nga ku mel ni Sëñ Tuubaa du fi ñëwaat te loolu naar bu weex tàll moo ko seere xalifa samaanu la yaatiyanna bi mislihi kazzabat yaminuka yaa samaanu fa kaffiri mu ne àdduna ka kafaaral sa fen ku mel ni Sëñ Tuubaa du fi dikkaat moom ci boppam mu wax ni xus xayaatan laa tura li xayri mujisatan baanat li usni xayri dund naa dund goo xam du ngeen ko gisaat ci kaneen ku dul man kon moom rekk la moom nag amut kun koy tëkkaleel ñooy wax ni téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni ak ñeent yi suñ boroom yabal ci kaw suuf seenu nit ku mel ni sëñ Tuubaa nekku ci kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax moom suñ boroom la soob mu ber ko nun ñëpp bu nu tegoon ci balance teg sëñ bi ci balance sëñ bi wat na du ci kenn ci nun kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax waaye nag ngir nga xam tuuti ci taxawaayam bi muy ñëw jamono daa fekk réew mi jaxasoo ci niñ ko xaajee nga xam ne noonu lañ ko xamee ñun ñépp ci histoire réew mi muy bawal njàmbur kajoor saalum waalo ak siin ak jolof ñoo ñépp ay boori àdduna fa ne woon yoo xamante ne ni am nañ doole not nañ ña ñu dëkkal di dund ci seen kaw ñenn ñi xaw a amum xel di mën a maslaa ak ñoom di mën a bokk ak ñoom seen nguur ñu tudde leen ay ceddo ñeneen ñi ci des doon ay baadoo yor nañ alal waaye amuñu aw fit ñu not leen fu leen neex lañ leen di jaarale réew mi am gan gu fi joox walla si fi di lim bu tuuti waaye ami ngànnaay am doole wex muy tubaab bi loolu moo newoon ci réew mi waa réew mi dëkke fitna ju tar joo xamante ni kenn xamut foo koy jooytoo nit mënta toog fenn tranquille léeg-léeg gis dëkk boo xamante ni dañuy dem ba jàppantee ki nelaw ñu fëggum dënd ni leen ko fi fanaan doonub jàmm ña woyof takk seeni bagage dem ñay sàmm seen te des fa ñu not leen tudde ñooñu ay jàmm su fekkee gor am na ñooñu ay gor yi ña fa des ña daw ñooy jàmm ya loolu di fitna mag ñi di ko dund tubaab bi jooxu ci seen biir buur yi dëkkee xeex waaye xeexaluñu woon l'islam xeexaluñu woon réew mi seeni intérêt lañ doon défendre léeg-léeg ñaari buur daje lim bu bari faatu ca te dara tegewut ci diine tubaab bi ñëw doon gan yor ay ngànnaayam ba pare doon lim bu tuuti créer fetal mën a daan nit dóor ko kooku bal nga daanu kooku mënta xeex ak borom jaasi mënta xeex ak borom wet liggéey maîtresse man koo roose mbooloo ñu tëddandoo tax mag ñi gën koo bàyyi xel liggéey këno mën a faagaagal ab dëkk defar elise di jaar ci géej gi di jàll tereke yi duñ ko mënal dara defar alter nga xam ni su dàqee buur yi bañ dugg ci seen tata yi mu maasale tata ba loolu maîtriser réew mi itam ba fu fi dara nekk mu xam ko créer kinin di ko pikiroo ba fu mën a mucc ci si buru si nga xam ni fu africain yi nekk ci biir réew mi mën na leen a topp ñi fi doon yëkkati baatub yàlla mu dal ci seen kaw kon nga gis ni tubaab yi rey nañ buuri àdduna yi ñu ci bari tubaab yee leen rey joori jor ndeela dammeel sàmba yaaya alburi mi woon jolof ba ci lat joor mi fi mujj ñoo ñépp tubaab leen faagaagal ñi fi doon woote diine tàmbale ci amadu seexu ca bànjangara sidi lamin daraame ahmadu seexu ba ñoo ñépp tubaab leen faagaagal rey réew mi tàng jër kenn amut foo jëm lakk daaree alxuraan yi fi woon muy piir tubaab yee ko lakk Pire tubaab yee ko lakk lakk Longoor lakk daaray Kokki mag ñi defe nit ku weex moom malaaka la mag ñi sax dañoo bañoon ba ne rey ab tubaab yomb na waaye xaar fa siggil ndigaale ji moo jafe xaal fa njaal ma moo jafe ci diggante boobu yi nag ci la sëñ Tuubaa feeñ muy coobare suñ boroom mu nar noo xett li ci fitna jooju ñu nekkoon ndax boobu doole ji fi nekk mënatuñ koo dékku mu yërmaande suñu borom ji mu wàccee ci suñ biir ndax li may wax nii daanaka diggante 1854 ba 1900 1886 Lat Joor mi fi mujj daanaka jamonoy Faidherbe ba fi bari na ci ay dëkk yu ñu taal nit ñu ñu rey ci diggante boobu la Sëñ Tuubaa feeñ yëkkati loxoom woote amarani rabbi bi an usarriha bi anni mulaasun waximan wa mafsaun fa man aradal najaata fii kilta daare ni fal yàllus bie yëkkati loxoom ni suñ borom moo ma digal ni naa woote man maay rawatukaay bi ku bëgg a raw ku bëgg a mucc ci àdduna ak àlaxira kay wéeru ci man loolu sëñ Tuubaa ko wax mag ñépp daw wuti ko ñi àndoon ak buuri àdduna yi wan nguuruk àdduna gannaaw wuti sëñ bi doomi soxna yi fi nekkoon commencé di ko xool cati bët ndax riir gi nit ñi daw riir wuti ko ak wan gi leen nit ñi commencé di wan gannaaw tubaab bi di ko xool cati bët ndax fi mu jaar ak bokk bi yi doon wooteel lislaam te not leen moom mu fëlaat ci seen kanam te xool yi ko fi fekk mu fekke ko ak yi ko fi fekkut te nettali loolu itam jafe ceddo yi itam teg ko bët ñoo ñépp sëriñ bi dékku ko ba am ci réussite boo xamante ne ni kenn ku mos a teg tànkam Sénégal di wooteel yàlla amu ko ci loolu mat naa bàyyi xel bu baax nga gis ne diggante boobu mu woote te tubaab yi ni ko du fi amee mu ni leen fii lay amee sëriñ bi dëkk ko moom kepp bil xatti jaahatu abduwallahi asrata awamin bi sikrillah nee na ci sama xalima laa jihaate ak noonu yàlla yi ay at jaahadtu bil xat si nii na wax di xeex bi li muy rëy rëy rëy jënd jëmmi sëñ Tuubaa doo dégg kenn ku la wooteeb sëñ Tuubaa ca ca la sama baay des wala sama maam ba mu wujjee del wut wala sama nijaay mennum sëñ bi rekk la te stratégie bi mu jëfandikoo mooy xalimaam ngànnaay yi mag ñu doon jëfandikoo ci ñi ko jiitu fële la ko teg ba suñ borom jox ko résultat bii mu am nga xamante ni kenn mësu ko am ci àdduna moo tax sëñ Moussa Ka ni ko yaa tax ba ñuy rukkoo yoo ngi sujjóot ceddo yaa ngi jàppi wóom te fétaloo bañ ami góom mu taseeg tubaab yi benn rek muy jeebal bi muy taseeg tubaab yi mag ñi dañoo wax ni su ñu séenee armée tubaab yi seen fetal yi jëm kaw day mel ni dugub duy focc ndax bu bariwaay te jenn jëmm ji ñuy dajal yorut lu mën a xuri nit lu mën a xuri nit yorul ko xuus ci seen biir dem ba ñëwaat indiwut benn laago andiwut jenn waxi salit lam doon wax itam tey la gën a wax kooku mat naa bàyyi xel bu baax bi mu ñibbisee tubaab bi noppaluwut juróom-ñetti at la ko yor ci bitti bis bi set saa yu xëyee luy génne ak room rekk lay fexe waaye suñ boroom nanguwut lu tax mooy daa dénkoon boppam yàlla naf si wa diini suma ahli walwalat wa maskani lakka wa diatun abad loolu la takk mu di say mu dénk ko yàlla bi mu delsee at yu néew la am ay weer yu néew la am ci réew mi ñu ni ko at cas yóbbu Mauritanie bañ ko yóbboo Mauritanie dañu leen ku këf jigéen ay ati at mënuloo ko dara genn guddi du tax nga am ca ndam demu gànnaar gi ñeenti at la waaye moom genn guddi la ko jàppe te tubaab yóbbu nañ ko juróom-ñetti at mënuluñ ko dara bi mu del siwaatee ñu def ko résidence surveillée Thiéyène mu nekk fa juróomi at ñu jëlewaat ko Thiéyène Jolof yóbbu ko njaareem fukki at ak juróom ndax lañ bëggoon ci moom amut muy ñu génne ko àdduna ci seen coobare bopp suñ boroom nanguwut waaye ñu xam ni kii mi doomu aadama la yor te bis dana ñëw lii gaar ñëpp dana ko gaar bu boobaa fu leen neex lañ koy yóbbu nga gis ni sëñ Tuubaa am na ci loxoy tubaab yi fanweeri at ak ñett gis nga bi mu sancee Tuubaa juróom-ñaari at la fa dëkk 1888 1895 mu génn ba 1927 keroog bi ku sëñ Moussa delloo tawaatee fee mu nekk nga xam ne ku koy siyaar fa nga koy siyaar sëñ Tuubaa tegul tànkam ci suufu Tuubaa bëtam tegewu ci mu doon natt bu rëy boo xamante ni dal na ci kawam ndax sëñ Tuubaa bu amee génn bëgg ko àdduna guñ ko mën a màndargaal Tuubaa la koo xam da ko bëgg ci xolam mu feeñ ci ay waxam ya sirru jooyi li Tuubaa ya ba mu nekkee ci bitti rabbis tajib waltu kàmmil ma nawaytu la daa Tuubaa yooyu yëpp di ca wane rek cofeel gi mu am ci dëkk bi waaye suñu borom nattu ko ba mënu faa dem te jaarale ko ci ay nit muy tubaab yi tubaab yooyu yi ko yoroon seen pexe moo doon bu suñ borom ñëwee ak dogalam fu leen neex lañ koy yóbbu ndax suñ tubaab bi muy dund mooy capitalu yoonu murit fu mu ne foofay capital ba kon bu fi jógee fu ñu ko def foofay capitalu muridisme Tuubaa dayo bi mu am ñu naan dañ koy tëkkale ak ndakaaru ak li ko ndakaaru mage ci at ak fii Touba toll dara waralu ko lu dul sëñ Touba mee fa tëdd Touba amuloon aw yoon amul géej petrol feeñu gu fa or feeñu gu fa jamaa feeñu gu fa mbay nanguwu fa ndox ma neexul climat ba tàng na waaye murit boo gis naa la Touba la bëgg a dem dalaf dalaf ji murit yi def sëñ Bàmba ma fa tëdd tax bu fa tëdduloon kenn mënu faa jëmale kenn ndax nekk na njaareem fukki at ak juróom ñu ko dëkkal Touba jafe ko lool ndax ku fa dem marawa dàqe la fa ak coono yi waaye muy muy boroom ñaan gu nangu mu waxoon ni akramani rabbi bila xuruji jismi min watani li nafi li nafi ahlil muduni suñ boroom moo ma terale sama jëmm des ci sama biirum réew dee su ko yóbbu faneen ngir suqalee ko ma leen réew loolu suñu boroom moo ko terale waaye ndax ñim séqaloon àdduna xam nañ loolu xamuñu ko ñu ngi ci seeni pexe waaye booba nag moom yaral xafaaya bi aynil qalbi zahiratan kama yusahidu ma taxtal akinaat kii mag ci ay doomam jëkku ko wuutu gannaawam sëriñ bi batale ko boppam sëñ moodu sëñ Touba ko wax ni ko bu bis baa Touba la mooy saa yu borom suñ borom ñëwee akub dogalam Touba la bëgg a tëddee loolu kenn mënalu ko sa bopp dañ la koy defal mu dénk ko sëñ Moussa waxaat ko itam ci yeneen jataay ni ko su ngeen lijjantee ba ma dem Touba lépp lu ngeen soo mbëtti danaa ko àggale waaye bu ngeen yaw fuusee ba dem ma Touba dana mel ni demaluma leen woon fen kon liñ rawee àdduna bépp mooy dem gi Sëñ Touba dem Touba bu demuloon Touba loola waaye mën a wax ci am xel la ko teg waaye du réalité loolu doonut woon lu yomb ndax li day xamal ne du yomb mooy sëñ tubaab fukki fanweeri at ak ñett yooyu yi mu am ci loxoy tubaab yi fu mu fi yendu mbaa mu fanaan fa tubaab yee ko fu bàyyi fukki at ak juróom am na ko njaareem diggante njaareem ak Touba soreewul waaye fukki at ak juróom sëñ Touba am na ko njaareem yoo xam ne ñaari yoon la ko génn benn bi xuru Mbàkke la ñëw bi ci des ndakaaru la dem te ñaar yëpp autorisation la xuru mbàkke bokk yi ñoo daje ñaan tubaab yi garanti ni bu 17 heures dana del siwaat ñu may ko mu ñëw xuru mbàkke ndax foofa la waajur yee doon dunde rakk ji topp ci moom foofa lañ ko rob mu ñëwaat doon nammanti ko ak barab ba soxla ko yandu fa bi ci des gouverneur général moo ko woo convoqué ko Dakar mu dem fa ñaari yoon yooyu la Sëriñ Tuubaa génn ci fukki at ak juróom yi waaye mënta génn fenn bis itam tubaab yi woo nañ sëñ Mourou Sow ni ko kii yi dañoo bëgg bis bu fi bàyyi ko ñu yóbbu ko foo ñu neex am na ci seen rapport yi sax soo xamee dañu wax ni murit yi am nañ suuf ndakaaru suuf su yaatu léegi bu sëñ bi bàyyi ko danañ ko yóbbu foofa def ko fa def fa jumaa loolu am na ci biir mbindum tubaab bi mu ñëwaat sëñ Tuubaa laaj ko ni ko lu ñu wax sëñ Moodu mënu ta jaar ci digg ba lañ ko wax waaye sëñ bi daf koo gën a confirmé waatal ni ko ni ko Mouhamadou Moussa mu ni ko Mbàkke mu ni ko bu bis baa Tuubaa la bu bis baa Tuubaa la yàlla moom yi dogal nag ci coobareem ca jeexitalu fukki at ak juróom ya cheikh Mouhamadul Moustapha kit ñëw na fa ci tamxarit wi ca njëlbeenu tamxarit wi rek ñëw na fa sëñ ma paate mbay romb ci biir kees yi seen ko jàdd nuyu ko ni ko kañ nga fi ñëw mu ni ko fan yi de laa fi ñëw ni ko dama siiwut de waaye maa ngi fi mu nuyoog moom nee na keroog sëñ Moussa nee na ko ma paate de man de dama jaaxle fi mu toll ni mu ni ko loola jaaxal mu ni ko dama mel ni ab juyeer bu ne cib gaar di waajal saxaar guy déqi ak ganeen guy arrivé saxaar gii fees na day dem gii ci des day war a costé waaye taxut mu xam li mu ko bëgg a wax ba ci fukki fan ak juróom-benn ca tamxarit wa fekk sëñ bi daf koo waxoon ni ko Mouhamadou Moustapha tamxarit bii ñuy dugg saa yu demee ba sori foo ne soxla naal sëñ Moussa jógee fa ñëw Touba Kayar ab dëkk la boo xam ne moo ko sañc ci jamono yi sëñ Touba 1922 foofu la nekk ci yéen bi muy xëy di toog bu xëyee mag ñi wër ko muy waxtaan ak ñoom ba mu yàgg mu ni tekk waxut dara ba mu yàgg mu jéggat piliyaan bi dem ca tokkoor bi ba mu demee ca tokkoor ba sëñ moor jàndam mooy maam yi sëñ mbàkki soxna loo moo jur waajuram mu jigéen moo ko moo topp ci gannaawam ba ca tokkoor ba sëñ moo du taxaw ni ko moor mu ni ko mbàkke mu ni ko damaa jaaxle mu ni ko ah yow mbàkke la war a jaaxal mu ni ko foofu yi ma toogoon ak yéen ci yéen bi am na lu wax ak man te du fen te lépp lu ma mës wax dëgg la nee na su ma amee ñeent fukki at deetu ma am kilifa te sëñ bàng fi ni ko loolu jaaxal na ma sëñ moor ni tekk mu ni ko fii ma taxaw di wax ak yow maa ngi sama ñeent fukki at yu tegal ayu bis ñu jóge fa ñëwaat ci piliyaan bi mu toog dajale mbooloo mi yeewi leen ni leen damay dem Touba waaye danaa fi dellusiwaat na ngeen sax ci jaamu yàlla te moytu lépp lu luñ leen di tere jóge fa ñëw Touba dugg biir këram génnaat dem tum tindo di muy usnu maar daa dugg biir néegam génnaat jël otoom jaar polle jaar nayde ñëw kéllal laaj ahmadu ma xureja mooy maam maami sëriñ Cheikh mbakk Gaynde Faat moom moo jur waajuram mu jigéen ñu ne ko ahmadu ma ja daa dem tool mu bind ab leetar bàyyi fa jaar daalu musti jëm ñaaxeen nee na laata muy àgg ñaaxeen la waxoon ak moom Touba Kayel waxaat na ak moom ci biir oto bi ni ko wàññikul jëm njaareem mu continuer dem ñaaxeen ba mu demee dimaas bi dafa fanaan fanaanee sëriñ mat si la ñaaxeen ni ko tool àllarba bi woote woon naa ko waaye dama bëgg nga fekke ko sëñ Modou ni ko fekke gi lu muy jariñ mu ni ko bu nit ñi yëgee ne yaa ngi fi liggéey bi day gaaw ndax ñëpp dañuy ñëw sëñ Modou ni ko dama amul jot kon da ngeen koy woote ci altine ji mu ni ko kon nañ ko woote ñu woote ko mu ni ko bu nit ñi ñëwee nañ jawali ca tool ya bu kenn ñëw ci kër gi te suñ paree nañ xool barab bu yaatu ñu toog fa danaa fa ñëw woote liggéey bi tool ba gaaw a jeex sëñ Modou dem fekki leen fa ñaanal leen sant leen dellusiwaat ci kër gi bi mu dellusiwaatee ci kër gi daa wax sëñ mët si la ni ko kees gi ma nekk bu fi kenn jaar sëñ mët si la nee mu commencé lëndëm ma ni nañ yónde ay sondeel yu ñu fitaal mu ni ma jëru ko mais bi mu guddee ma ni ko naa delloo bunt bi mu ni ma mëtu ko ne ma amuk jaaxle kilifa ku ne ci biirum néeg te nanguwut ñu taal làmp ba nanguwut ñu delloo bunt ba ne ma boof ci bunt bi ne ma dégg ko mu àjj ab deram lal kàbbar di julli sëlmalee jógaat ba mu julli lu ko soob tàmbali jàng alxuraan ne ba fajar ma dem ci jigéen ñi yee leen ngir bëgguñu ñu a jóg ci ndékki ne bi mu paree ma ñëw raam ni ko ndékki li pare na mun ma jox ko Ablaye jóg muy sëñ Ablaye Diop lewoon ne ma jox ko ndékki li sëñ Ablaye Diop mu commencé di ko séddale ne ma déy ko ni ko sëñ Modou day coono yi bari na te nit ñi xamaguñ ni mu ngi fii ndax doo ko wax mu toog noppalu dallu fi ne mu ni gees ni ko lu muy wax mu ni ko ah, moom da day wax ni soo fi mënoon a dallu ba ci kanam ndax coono yu bari yi mu ni ko nañ defar bagage yi ñu defar bagaas yi mu jóge fa jaar gaawaan bi muy ñëw gaawaan booba maam Cheikh Anta nga fa booba commanda card nomination bu bees la yor ñëw seet si Cheikh Anta sëñ Moussa dugg tase mu yewi ku maam Cheikh Anta di ko gunge bi ko maam Cheikh Anta gunge ba pare wëlbatiku ni ko ndax nuyoo ngeen mu ni ko nuyoowuñ mu ni ko bu ma xamoon ni nuyoowu leen danaa leen nuyoo leen daan ni ko ngan gi nga ma doon wax mu xaw a jafe xanaa tey la ko suñu borom dogal sëñ Moussa ni ko déedéet damay dem ba beneen dama nekk ci yitte. nee ba maam Cheikh Anta ne ko xanaa dangaa yaakaar ne awma añ sëñ Moussa ree ko ni ko yow kay ku la gis xam ne am nga añ mu jox ko fa ak baa ak saakub cere saakub cere boobee sëñ Mat Lamin Ture mu yoroon soxna Astu Gaawaan moom la ko sëñ muusa may sëñ Moussa jóge fa talaata jooj ji ñëw njaareem bi muy ñëw njaareem tisbaar weesu na te takkusaan jotagul bi mu ñëwee njaareem la ko mag ñi ni ko sëñ Tuubaa de fi mu doon ni mat naa nemmiku ndax lii mu def gëj na koo def ñetti fan a ngi yoo xam ne kenn tegut ci moom bët dimaas altine talaata kenn xamut ci moom dara fekk sa sëñ bi ba mu julli jeegee ca ca sa ba mu jullee takkusaan ca samedi ba mooy jataay bi mu mujj toog aw nit wër ko muy wax ak ñoom ca la toog wax sëñ Mat Lamin Jóob ni ko jàngal ma njëlbeenu bàqara mu jàng ba ca muflihul mu ni ko taxawal ni ko ab jullit a ngoog mu ni ko jàngaatal mu jàng mu ne ko ab naafiq a ngoog mu ni ko jàngaatal mu jàng mu ni ko ab yéefar a ngoog muy njëlbeenu bàqara noonu la ko ayee teqantale mu ne ko Muhammad Amin Diop na ngeen moytu ak farfarloo moytu leen farfarloo amut njariñ ba pare nag ni leen na ngeen dakkal dox bi bañ weesu gàmm ga ku ci am yitte ju far na dem doxi ko ku ci amul yitte na toog ba weesu yii julli ji na timis julli ji gee waaye julli jiwul fajar ca timis googee sëñ Matar Sylla moo daan def saa yuy dugg ci biir néeg moo koy taalal làmp bi ñëw na yëglu sëñ bi ni ko kook mu doon mu ni ko mën a Matar Sylla mu ni ko demal bañ soxla ko mu dem mu delloo buntam génnatul waaye altine ci suba sëñ ibnu amar jóge na ci daara ja dem ca teen ba rooti bi mu demee rooti bi muy wëlbatiku tànk sëñ tubaa jaar na ci kaw tànkam dugg ci beneen néeg jóge ci néeg bii jàll ci néeg bële moo tax ñu ni sëñ tubaa lu mën a xew yoor yoorub altine la xew waaye lu jiitu loola moom dara xewul ndax sëñ ibnu moom jaar na fa ci yoor yoor dem ca teen ba rooti laata muy dëppaat sëñ tubaa jog gi na ci tànkam dugg ci biir néeg bi mu dem ca daara ji sëñ Moussa bi mu dikkee ñu wax ko loolu mat gi ak dal gi ak defar gi ku sëñ Tuubaa defar moo tax mu amuk dal ba mën a dékku loolu waaye mbir mu rëy rëy la sëñ bi mat naa nemmiku ndax lii mu def gëñ na koo def te ngay taawam bu ma ak sëñ Tuubaa fi mu toll ci jamono jooju mu toog sëñ Mat Lamine Diop Dagana ñëw wax ko ko mu ni ko waa baax na sëñ Matar si la wax ko ko te sëñ Matar sëñ bi néeg ba mu dugg sëñ Matar da ko yërndu ba séen ko mu tëdd teg masagu romb jaan lal ab sijaade bu ndaw ca kaw tëdd ca tëraay bu jekk tànk yi féete bunt bi moo tax mu ni ko xam naa ci lu kenn xamut sëñ Matar sax day wax ni maa ngi jéggulu suñu borom ci yër googu yi ma ko yër ndax tiit naa suñ borom mbugal ma ci ndax yëddu googu ma ko doon yëddu te jaaxle rek ko bañ jullee timis ba pare la sëñ Moussa tab bi ci biir bâtiment biir kees nga ànd ak sëñ Mat Lamine Diop Dagana ànd ak sëñ Cheikh Khary Dieng ak sëñ Makhtar Sylla laaj gan kees lañ ko mujj dégg mu yëngu ñu ni ko keesuk sëñ Cheikh Fatak ko jóg mooy nijaay sëñ Murtala moo yaay sëñ Murtala bokk day ak bàyyi woolu ko mu ñëw biñ ñëwee dañoo fekk bunt bi mu wis wisal ci ci suba gi ba bunt bi bunt buntu dénk la xaw a forcé mais sëñ bi tëjul bunt ba da koo delloo waaye fekk na nag néeg booba Cheikh Ibra Fall la ko takkaloon sëñ Tuubaa moom la fa yónnee woon mu takkal ko ko néeg ba dara nekku fa woon genn basangu romb jaan fa ne woon sëñ bi bu dikkee da koy lal toog ci def la muy def bu paraatee da koy sëpp ndax nee na suñu borom ma koon boo demee ba yëg ab coono ci sa bopp demal ci liggéey bu Ibra Fall liggéey nga noppaloo fi bunt bañ ko jaarale itam sëñ bi moo woo Ablaay Xaar ni ko demal ci Ibra Fall ni ko ni ñëw sàkkal ma fii bunt te bu sàkkee bunt ba pare na ko tëj bu fa kenn jaar na ma indil doom bi nekk te bunt boobu ci la sëñ Tuubaa di jaar buy dem Tuubaa loolu tax ba sëñ Moussa ñëwee sëñ Mat Lamine Diop la ne ko doxal sëñ Mat Lamine Diop sëñ Tuubaa daf ko wax ne ko may naa la fu ma ne man nga ma faa fekk nga xool sëñ Moussa ak taalibe gi li ko sëñ Tuubaa di jur jur bi mu dikkee sëñ Mat Lamine Diop la ne ko bismillah sëñ nuyoo kenn fayu ko mu yëkkati xasida kenn fayu ko mu fittasu kenn fayu ko moo xam ne am na loo xam ne dooma ko sañ ci mu dellu gannaaw ni sëñ Moussa bismillah sëñ nuyoo kenn fayu ko mu yëkkati xas kenn fayu ko mu puus bunt bi mu yem ci tànk tëñ lampe fatafoor bi ñu doon bi ñu doon yor di ci niit ci lañ seen jëmmam mu tëdd tëddaayam bu njëkk xam ne suñu borom ñëw naa ko dogalam mu dugal loxoom jël teg loxoom ci tànk yi tudd yàlla waaye sëñ bi yëngutuwul mu xam ne suñu borom dikk naa ko dogalam ba mu duggee ci biir tiim ko dane akatis gor ak a mën a muñ ndax sëñ Tuubaa li dal ci kawam ci diirub li mu fii ne te kenn déggut benn yoon bu mu salité wala bu mu waxee loo xamante ni ni luy niru ak dellu gannaaw la ci li mu doon wax moo tax mu ne ak a gor ak mën a muñ foofa nag la daal koy bàyyi dem ci commanda bi ndax sëñ tubaab juridiquement kenn amul droit déplacé ko te amul avalu tubaab bi résidence surveillée leen ne loolu dañ ko war di leeral pour gone yi man koo xam da bokkul ak jamono jii nga xam ne sa baay day wàccub liggéey nga dem ci garage bi wutub oto dem ca jàkka ci àbbu kees ñëw teg ko ci yóbbu ko Touba wut noonu juridiquement kenn amul droit déplacé ko ndegam bi muy dund lañ ko ñemewut a déplacé askan maag bi muy dund léeg-léeg nga dégg koo xam danaan sëñ Moussa da ko yóbbu ba Ndula door dem ak dem waxi ko tubaab bi man leen loolu du jom du aw fit sëñ Moussa ñàkkut ci yooyu benn sëñ Balla Coro la àndal dem ci kër commanda bi commanda carte wax ko ni ko sëriñ bi daal génn àdduna fekk na commandant bi wàcc ba dem këram këram la ko fekk ànd ak moom commandant bi ci buntu soow ba la jaare sëñ Moussa wëri jaare ca buntu penku ba ndax bañ information bi faccat mu géré ko tubaab bi amoon nañ droit saa yu leen neexee la ñu dugg si ci biir kër gi kenn du leen laaj lu ngeen di dox kenn du leen laaj lu ñu wut waxtu wucc ne lañ koy dikkal moo tax commandant bi ci buntu soow ba buntu ba ñuy wax buntu sëñ paatee fa la jaare dugg si ci biir sëñ Moussa jaar jaari ci bunt penk ba keroog tase na fa ak sëñ Amsatu Jaxate ci penku ba mu indi fa sëñ Saaliwu ak sëñ Sooy bu bëggoon ñu siyaar si sëñ bi te mujj ñu ko gis guddi googu sëñ Sooy bu dafaa fanaanee jooy waaye xamuñu lu muy jooy gisuñu sëñ bi sëñ Moussa dugg si ci biir wan ko ni ko ma nga ne génn àdduna waaye dama koy yóbbu ci këram gi ci Touba tubaab bi ni ko loolu mën naa ne waaye faaw ma yëgal ko sama kilifa sëñ Moussa ni ko loolu dàquwul tubaab bi proposé ni ko est-ce que duñ xaar ba suba sëñ Moussa ni ko mënta xaar ba suba bu xaaree ba suba kenn du ko lijjanti commandant bi d'accord ak moom ni ko léegi man nañ ko yóbbu en tànn su fekkee nar naa indiwaat yeneen complication ñu indi ko ñu waajal ko safoor bi ko doon indi xamul lu mu yépp dañ ne ko sëñ bi daam bagage yu muy yóbbu Touba nee na ndax danga ko mën a yóbbu te sa lampi oto du tàkk ñi ko yóbbu Touba sëñ Basiiru la doomam fanweeri at ak ñaar la am kepp moo ci ànd ci doom jum jur sëñ Mat Lamin Jóob Dagana Cheikh Xari Jeng sëñ Maxtaar Silla Muhammadan Tandaxi juróomi nit ñoo ko yóbbu Touba ak dut si si mi doon dawal oto bi foofee lañ ko jële yóbbu ko Touba ci waxtu yu néew sëñ bi am ak bëggam te ba muy sañ ci Touba la waxoon wàcc al ilaahi yi Touba abad nanga ma defal tuubaa sama dëkkuwaay bi muy sama dëkkuwaay ba faw te am fanweeri at ak ñett yum fa jaarut wow bayit mag ñi xamuñu lu muy firi ndax sëñ bi am na fanweeri at ak ñett yu mu demut Touba bëgg googee mu doon defal nga xam ne moom la sëñ Moussa def loola ku dul woon moom mënoo bu jaxasoo woon du sotti bu andul woon ak sagoom du sotti bu amul woon maîtrise du sotti ndax Sëñ Tuubaa ni mu toll ki a tollu noonu bi nga xamante ne ni tubaab bi dellu na këram daa dem fu fukki soldaar ak ñaar ñu ñëw cercle kër gi waaye fekk sëñ bi moom waajal nañ ko ba mu dem bi ñu demee sëñ Moussa daa yónnee ci borom daaru sëñ lay Diop lew na la jox oto ni ko demal daarul mooti nga wax Baye Thierno ni ko kawoon Touba kawoon njaareem nee na ngeen daje Touba. sëñ Ablaye Diop bi muy dem dafa fekk boroom daaru fatu ba tëj keesam mu gis bëkk néeg bi wax ko mu ni ko sëñ bi fattu na mu ni ko mënuma koo ñàkk gis mu ni ko fatu na sëñ Ablaye Diop door koo wax li xew nee na bëkk néeg bi bëgg a yuuxu sëñ Ablaye Diop nee na ma tatafu putam gi xoj ko jël sama baaraam bi teg ko ci noox noox bi ba muy xoq-xoqi mu wóor ko ni dama koy rey ma ni ko gis nga lii ma la wax njaareem laa jóge ba agsi fii kenn yëgagu ko boo fexee ba mu siiw da nga tooñ yàlla tooñ yonent bi tooñ tooñ sëriñ bi tooñ sa bopp te dara du la ci mooy nag nee mu ne ma bàyyi ma du ma wax du ma def dara nee ma bàyyi ko mu yéeg sàkkitu cëppeelu ci biir maam Thierno ngi ci mbaar mi duggul ci biir néeg bi ci mbaar mi lu wéru nee ma wax ko ko bi ma ko waxee maam Thierno nee na tekk diggante boo xam ne mënees na fee togg ab laax ba mu ñor te kenn waxut sa morom ñoom ñaar nee na maam Thierno ni ko kon de njaareem mat naa jaaree nee na sëñ Abdoulaye ni ko Touba la ma wax mu ni ko nañ def li mu wax waaye batale daa foor sëñ bi damaa batale woon ni ma bu ma des njaareem ñu ñëw foofu ñu door yónnee nag ci kilifa yi yónnee ci sëñ Mbàkke Busa yónnee ci sëñ Dame Abdourahmane Lo yónnee ci sëñ Mandumbe yónnee ci sëñ mat Madlamin Ngay Firdaws yónnee ci sëñ Baara Fatim Mboy mag ñooñu ñoo fa daje def ko foofee mu nekk la lay xamal ne liggéeyub Sëñ Tuubaa réussir na mooy bi ñu jubloo ci mbiram ba fajar di jot nga xamee ni dugg na ca biir pax ma la ca des mooy tot suuf ak maasale ñu noddu fajar jot sëñ Mbàkke bu sa ni leen eh moom kat waxoon na ni lépp lu koy defal ba waxtu julli jot nañ ko bàyyi ñu noddu julli suba def seeni baaxiyaat saalihaat door a del si àggale lañ doon def kooku lam leen doon jàngale mokk na yàlla rongu la leen wanoon wonu leen boppam te pourtant bu njaxasoo woon it adduna dana leen ko muñal ndax kañ ñàkk mosuñoo am lu tol noonu loolu réussite tub sëñ Moussa la mënu ko gannaawam sëñ Moussa def na ko jeena loola képp bu ca yemoon am payug sëñ Tuubaa loola rek doyoon na ab liggéey muy lii sëñ Tuubaa bëggoon mu jafe lool muy dëkk Tuubaa te deetu fa jóg mu fexe ba loola am muy andi ko fee nga xamante ni ku ko soxla ci ñun bëgg ko siyaare fa ngay ko tiim ko loolu bu doon sëñ Moussa du am kon dañu jàpp ni fu mu murit mën a nekk am seddu xol ci sëñ Tuubaa ba jàpp ni aajoom faju na war naa delloo njukkal sëñ Moussa te pourtant bi mu koy def ñeen fukki at lam de ñeen fukki at képp lam ñeen fukki at lam te ay tubaab la ko séqal loolee nag guddi fukki fan ak juróom-ñeent la ci taw ak sëñ bi dañ ne la lu xew altine la xew te talaata ci guddi la ko sëñ Moussa jële muy guddi àllarba ñu indi ko Touba denc ko bët set di àllarba kon ñi naan bisub dem la xamuñu dara ci li ñuy wax sëñ bi daa doon yonent bi yonent bi altine altine la dem ba lañ ko rob muy guddi ta bët set di àllarba sëñ Touba loolu moo ko dal fukki fan ak juróom-ñeent ci aw tam xarit la ko fu sëñ Moussa jëlee indi ko Touba indi goog yi mu ko indi Touba indi goog yi la sëñ Moussa di màggal guddi goog yi lay màggal guddi goog yi mu jëlee sëñ Touba foofee mu fekk ko foofee mu tëdd ab liggéeyam mat sëñ Moussa jële ko fa indi ko Touba guddi goog yi lay màggal guddi goog yi la sëñ Moussa wax ni juboo na ak saak borom ne képp ku fi fanaan boo xëyee man nga ne liir buy dooru judd ci set wecc ci bàkkaar loolu engagement la juboo nag ak saa borom la wax néewul gént naa néewul déy nañ ma néewul kenn nee na ma juboo naa saa borom la wax loolu engagement am la ku fi fanaan boo xëyee mel nga ni liir buy door a judd ci set wecc ci bàkkaar te bokk yi ëllëg yomal xiyaam lu naqari nit bàkkaar ko yóbbu loola naqari sa bopp rek bàkkaara la ko kon boo xamee fu ñuy fare bàkkaar war ngaa dem sëñ Moodu dellu waxaat ni fu fi taalibe nekk te yaakaar sëñ Tuuba soo amut loo ñëwee nee na jar na jaay sa mbubb bu paase ko te ñëw ne boo yoree ñaari mbubb na la jaral jaay menn ma te ñëw daal ni soo bëggee ñëw te am mbokkum taalibe mu dend ak yow te bëgg a ñëw te yorul paas sëñ Moussa ne la nga ma waroon a siyaare nga xam ne boo dikkee jàpp nga ni mën nga ko jox nee jox ko koo kii ngeen ànd ñëw ruu yi laa soxla soxla wu ma alal ji ruu la bëgguñu ñu fanaan si Tuuba loolu du lu ndaw dem na ba wax ni yitte ju jar bañ a fanaan si Tuuba guddi gi asirina muharram suñ borom sakku ko jenn yitte joo mën a laytoo ni moo ma tee dem Tuuba màggalu asirina muharram yitte ju man di doon jëru ko ndax yitte ja moom ju mën di doon bu dee dikkee da nga ko bàyyi te deey te fee guddik far bàkkaar la te sëñ Tuubaa mi tax ñu di ko wax moom ñu tax ñu di ko def mën na ko ki ko wootee te mën na ko yàlla mi ko diggee moom tëlewul dara tabaraka allazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in yàlla nee maa man lépp te lu ko neex lay def suñ borom ma dogal lii sëñ Mor Jàndam dafa dem Saalum sanc ba xaw a tàng jur gi loof gone yi tàngoor màggal ga jot màggal siwut ba màggal ga jàllee mu ñëw siyaar si sëñ Muusa sëñ mu laaj ko loola tee ñëw mu ni ko xanaa melokaanu jamono rek sanc bi dafa xaw a tàng jur gi loof gone yi moo tax mu ni ko bu mu amati jenn yitte ju jar bañ a fanaan si Tuuba guddi gi asirinu muharram suñu borom sàkku nee na boo demee ba amoo benn moyen bu la mën a yóbbu xoolal mbedd ba jëm Tuubaa nga sol ba fu la fajar fekk nga wàññi ko maanaam bis bi suñu borom da cee sàkk ay malaaka yoo xamante ñi bëgg a ñëw am pas-pasum ñëw te mënuñoo ñëw ñoom la ñuy gàttandu jox leen seen wàll ñu wàññi ko sëñ bi tegaat ni sëriñ bi keroog boobu bii mu jógee njaareem jëm si Touba ña ko doon gunge dañu ànd ak moom saa yu at mi dellusiwaatee Touba la ñuy fanaan ni ko fa fanaan ak ñoom suñu borom jéggal la say bàkkaar te wóor na leen moom jundulaahil kiram moom ñoo gunge Sëñ Tuubaa loolu moom lu nit dof dof dof moom amut loo cay demee ci xasidaam nga muy wax ni tawassul ci xamsatu rijal yaa rabbana ilayka asku xaali bil mustafa wa xamsata rijali asayqil xaws qadiril jilani haisil ulumi wal arifani suma abi yasid al alaarifi mu bañ sumat aba hamid al xasali xaamisum aroful karqi al jih bisil muqaddamil wali ihdir xumoo indama matiya xadaloo na nga leen teewal bu sama roogi di tàqali ko sama yaram nañ teew xanaa teewuñu ba roogi tàqali ko yaram ñu dellu seeni kër ñoo ko gunge am na foo xam ne it yonent bi la wax ne wajal ilahi rasulallah yahduruni inda nusuil jaahi yonent bi na ma dogguli bu sama yi dañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na dama dogguli moo tax mu ne inna allazina sahidu fi lbaaraka mujahidina kullu abin musrikin li nawalun kulluhum yaxbituni wa kullun sairun li watani nee na ku mos dee ci ab xare boo xam ne moo xam yonent bi nga àndaloon wala gannaaw yonent bi nga ko xeex te lislaam tax ña ca deewoon nee ñoom ñëpp ñu ngi may ñee ci cër bii ma am te nee na ñoom ñëpp ñu ngi ñaan suñu borom audience ngir siyaar si ma ci sama dëkk bi guddi googu rek lay doon guddi googee taxoon suñ Moussa waxoon ni waa dëkk bi bu jub seetee na ngeen buub dëkk bi ba mu set ni leen ku fi buub luy tolloog tàggum piccum perantaan suñu borom far say bàkkaar ndax ganam yooyu la bëgg bu ñu ñëw fekk dëkk bi set looloo tax bu ñuy waaj a màggal Daaru Xudoos ñuy buub keroog mu Baye Moustapha yi moom sëñ Baara Faati Mbooj mii nee na ma bi ku sëñ Moussa di digle maa ngi toog ci ëttu kër Sëñ laat boobu yi nee na boobu ba la fa lañ toog di jàng Alxuraan fa lañ ko tegalu piliyaan mu wax ko nee na sëñ Moussa lam jotoon buub nii ci mbalit ci la ko ëmb ni ma ku ñu wax sëñ moor Sow for na ab duubal jox ko sëñ Moussa addiya foofu la leen ko digale kon ab taxawaay la bu am solo boo xamante ne ni mat naa bàyyi xel bu baax sëñ Blaat nee na damaa laaj sëñ Modou nee na damaa laaj sëñ sëñ Modou sa sëñ Blaat suñ borom da ko déggale ak sëñ Modou lool nee na dama ko laaj ni ko keroo bi nga jógee ñaaxeen ñëw njaareem ñu wax la xibaar bi nga dugg ca néeg ba tiim sëñ Tuubaa ci melokaanam woowu keroog laa bëgg nga wax ma noo def bu ma wax daray baatin nag wax ma saayir rek ne sëñ sëñ Moussa ni ko Abdul Ahad mu ni ko Mbàkke mu ni ko keroog ki ñuy wax ci yoon wi naan moo fi ëpp pas-pas nee na ko keroog ak siwuma ci deedeel we waa dañu ko ki ëpp pas-pas ci yoon wi keroog ak siwuma ci deedeel we moo tax sëñ bay jaxati ni ko say amu rëy wañ daan musuloo ko daw moom la la yar keroog la sëñ Moussa xam ne responsabilité bi yoonu murit mu ngi ci kawam xam ne ba ko sëñ Tuubaa di waajal bi su tey taxoon ba loola jàllee nag tubaab bi dañoo daje ndax crise daa commencé diggu si njaarim commencé amee jafe-jafe léegi ñu ni kon sëñ bi moom fa mu nekk suuf du yàq yàq yàpp yaramam nañ waxtaan jëli ko bu guddee indi ko njarim dencaat ko fi bu ñu xëyee déclaré ni sëñ bi delsi na bu ko defee njariñ melaat na melo seeblaat nee na naari libaane yi ak tubaab yi bi ñuy def délégation ci sëñ Moussa bi ñu ñëw fi lañ ma fekk ma toog nee na biñ nettalee ba pare sëñ Moussa daa ràbbale ay baaraamam ni ni loolu rek moo ci seen xalaat ñu ni ko waaw mun leen néewuma du am de waaye bu dee am saa bakkan bii du ko fekk sëñ Tuubaa dal déetu ma nangu mu randu jëm fenn seeblaat nee na keroog laa xam ne kuy liggéeyal sëñ Tuubaa sa bakkan nga ciy teg moo tax diirub li fii ne saa yoo déggee mu jël engagement daan sa bakkan bi laa ci teg nee na laa ko jànge sëñ Moussa yëmut ca loolu xam na pexey Touba bi moo tax mu titre foncier tuuba Touba bu waree dëkk yépp looloo ko ko may suuf si ci baatin sëñ Touba ko moom waaye saayir si ñu man ko officialiser ba mu dëppoo ak sart réew mi loolu sëñ Moussa la moo tax mu am baat bi mu am te ja jamono yooyu la ko def 1930 5 millions tàmbali jumaa jumaa ji ba léegi mat na dëkk ba jumaa ba léegi mat na dëkk ba jumaa dëkk bi rombagu ko ba mu koy tàmbali booba dara amut ràgg ak ràmm ak rafle doo nga fi nekk nit ñi amuñu luñ lekk amuñu luñ sol mu rëdd jumaa mag ñépp ni ko am ngeer buñ ko doon wut di ko làkki jumaa ji ngeer mu ko làkk amut ci tund wi yow nga ni da koy tabax xamoo ciment mu ni leen dëgg la xawma ciment waaye xam naa ki may liggéeyal sëñ Bàmba mi liggéeyal xam na tubaab yi koñe ko ni ko léegi jumaa ji matériel bi koy liggéey bopp du ko yanu oto attunu ko saxaar a koy ñëw mu wut yoonu saxaar financé ci 10 millions ci jaww ji jamono vingt 1929 jàpp 31 lëggee aw yoon képp ngir jaamukaay bi yàlla loolu boo doon wër histoire doo ko am amul sëñ Tuubaa fi ay tuut tànk yoo xam seeni at bariwut mu taxawu leen ndax ñi fi sëñ Tuubaa bàyyi ci mag bëriwut sëñ Muusaa ci mag ñeent fukki at la am sëñ Fallu fanweeri at ak juróom-ñeent la am yu tege ndox ndax sëñ Modou ko mag sëñ Baara ci topp fanweeri at ak juróom-benn sëñ Basiiru fanweeri at ak ñaar sañ Abdoulahi borom dër bi fan ñaar fukki at ak ñaar ñii ñoo ca doon i mag kaneen koo fa mën a tudd fukki at ak ñeent jëm suuf la mooy si Ibrahima ak sëñ Abdou Lahat ak sëñ Abdou Khadir ak sëñ Taalib ñoom ñëpp fukki at ak ñeent jëm suuf sëñ Murtala juróom-benn at boobu ñoon lañ am ñooñu ñëpp sëñ Moussa leen taxaw ba kenn ku ci nekk bi nga waree wuutu sëñ Tuubaa néewuñu kii kat ni mu mel bàyyam da ko yarut moo tax kon sëñ Moussa la ko sëñ Tuubaa dénkoon ci njaboot gi def na sëñ Moussa mooy mii nag moom la sëñ Tuubaa doon dajale mbooloo mi su fekkoon dama koy firi ci wolof dama naan sëñ Tuubaa bi mu wootee dani sëñ Moussa dajaleel ma mbooloo mi mu dajale mbooloo mi mu ni sëñ Fallu kaay teralal ma mbooloo mi mu toggi bernde joxe mu ni sëñ Blaat kaay wax leen li ma leen di doyee yoon wi ku ci doxee sa bakkan yaa ko tey leer na nañ ku ci doxee sa bakkan rek yaa tey amut luñ fiy làmbut sëñ tubaa nag dafa ñaan boromam ni ko yaa rabbi ij'alil muridina maa fi xisnika alxasini wa samla ijmaa suñ borom maa ngi lay ñaan sama talibe yépp na nga ma leen defal ci genn buum bu kenn faccat te nga dugalal ma leen ci sa tatal li nga xam ne lu ca dugg raw na kon dajale mbooloo du caaxaan du caagénni suwaala bu ma neexee wujj bu ma neexee lànk déedéet wa'tasimu la suñ borom wax wa'tasimu yàlla moo ni digal naa leen ngeen booloo ngir bañ xàjjalikoo bi mu ni an yéen ñëpp laa wax amul boroom garaat amul ku suufee yéen ñëpp fu ñuy daje amul ku fa jomb ñëw xanaa ku lànk ndigalul suñu borom wa'tasimu bi hablillahi jami'an suñu borom tegaat ci wala tafarraxu muy ñetti ndigal yu rot ci benn ay booloo leen yéen ñëpp te bu leen tàggalikoo noonu bon doon xeex it dañuy xeex ba pare àndaat waaye wur noo tàggali ko te lu nu tàggale nag du dëgg bakkan rek a nuy tàggale bakkan bakkan képp a nuy tàggale booloo leen ñëw ma defar leen noonu sunu defar mi ngi ci nu ànd booloo leen la wax ñëw ma defar leen ñu defar mbooloo ak defar kenn yam daal ni li leen sun li ngeen bëgg ci suñu borom te mënu leen koo ñàkk mu ngi nii suñu borom jox ma ma tëye waaye duma leen ko jox mukk te boolewu leen seen bopp li fekk boolewu leen seen bopp ci lu leen boole rek lay nekk loolu yitte la ba pare dénk ko njabootam ñaar ñi ci mag da leen koo dénk sëñ Cheikh ak sëñ Bàkk Madina sëñ Modou Sa da leen a woo ci ak mu jëm ñu toog sëñ Cheikh la jëkk giseel ni ko Cheikh mu ni ko Mbàkke mu ni ko adduna dana soppiku te adduna soppiku la baaxoo ma bëgg bu adduna soppiku nga jiitu sëriñ topp ci yow ndax danga ko man sëñ Cheikh ni ko danaa ko man mu dem ab diggante mu woowaat sëñ Mbàkke Madina ni ko sëriñ mu ni ko mu ni ko àdduna dana soppiku te soppiku la baaxoo ma bëgg bu adduna soppikoo seex jiitu nga topp ci moom ndax da ko man mu ni ko danaa ko man mu def ay fan mu woowaat leen ñoom ñaar ñu toog ak moom ñuy ñett mu ni leen la ma doon kenn kenn ak yéen laa bëgg nu wasoo adduna dana soppiku te la baaxoo ma bëgg bu adduna soppikoo seex nga jiitu sëriñ topp ci yow bu ëllëgee ku ca war a topp yàlla xam na dama bëgg ngeen ànd te yàlla tax ni leen yéen ñëpp kenn ku ci nekk defal naa la loo xam ne mën ngaa beru di dund sa ajo di faju te doo gis sa moroom waaye bu ngeen ko defee sagalu leen sëñ Tuubaa siggalu leen dama bëgg ngeen ànd te yàlla tax nga xool ñoom ñaar ni ni ñu symboliser ànd bi ak seen rakk yi leen topp nga xam ne soxlawuñ dara ci seen gannaaw rek lañ topp effacer seen bopp bëgguñu dara ja bëgguñu tur doo leen dégg fenn ndax bëgg rek ànd boobu loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax sëriñ Cheikh Mbacke daan wax ni fépp fu fi waay nekk ci yéen di wax ci lu boole nit ñi mag yow a ànd waaye képp ku wax lu leen tàggale tooñ nga yàlla tooñ nga ma loolu la daan wax daane nag mbooloo mi képp ku ci nekk di yàq am na lu lay dàq te du la bàyyi mukk te jàpp la bu la jàppee du la bàyyi mukk te rëyu la bu la rayee du la bàyyi mukk te tàbbalu la sawara wala yaasu la moo tax képp ku nekk ci mbooloo di yëkkate sa kàddu war ngaa natt kàddu gi bu ma ko yëkkatee lu muy jur ban effet lay def ngir loolu nag moo taxoon sëñ Cheikh Mbacke taxawal daayira dayre bi njëkk juddu ci yoonu murid diwaanul murid diina la 1941 la ko sos sëñ Moussa ci jëndu carte sëñ muusa la defoon muy président ba mu jël sëñ Fallou toftal ca doomi sëñ Touba yëpp nekk ci bureau ba loolu bu ko seytaanee yëqut woon tey d'ailleurs bu fi man di nekk doomi ku fi nekkal sëñ Touba koy jiite waaye saytaane du nu bàyyi nu ànd te noo ko dooleel te suñu bakkan képp lañ topp daayira boobee tuut la dox sëñ Moussa nelaw adduna salfaañe ko tas ko sëñ Cheikh jaajowaat taxawalaat beneen daayira ndax nee na moom bu ñëwante fekk ku fi sëñ Touba dana woote ndax dañ koo dajalaloo mbooloo moo tax mu 1958 mu sosaat beneen daayira tudde ko muhibbina fi xidmati xayril mursalin ñu demaat tuuti adduna dugalaat ci loxoom objectif bi mu amoon bëgg ko ci mu door a taxawalaat ittihaadu atbaayil xadim li taawun wa tawasuk bi diwil xadim ca la daayira yépp juddoo ngir takk mbooloo mi mu doon wenn say diiwaan boobee nag sëñ ahmadul muxtaar mii fi nekkal sëñ Muusaa moom la ni dañ ko dekkalaat kër gu ne am na daayira waaye nañ samp loo xamante ni mooy symboliser kër sëñ Moussa bokk yi sëñ Modou jenn jëmm rekk la jenn waaye daa ami cër ay doomam foofu waaye neex mën na fa ne waaye jëmm ji nag ci cër yi la ne yi ci jëmm ji la ne mboolem doom jum jur wala seex bu aju ci moom nañ ko jàppe ni ab cër la waaye nag cër bu ci yëg sa bopp ba ni damay beru fa nga jëm doo fa tekki dara te fi nga jóge ab légat nga fi bàyyi loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ku ci jàpp benn cër nag fi doon nii di war a negg neggal te amoo soxla ci jëmm ji boo paree du rafet jëmm ji la ñuy solal mbubb mu doon rafet waaye gis nga fi mu doon boo takkoon ni weer takkub jaaroo sol yi dàll sol mbaxana te soloo mbubb ku la gis dana xam ne dof piir nga moo tax suñ kër yi ñu negg neggal dana amutum xel waaye bu amoon xel jëmm ji la ñuy solal mbubb mooy na nan fi nekk ngir suñ muus te du tee suñ kër yi dund ndax bu solee mbubb sàngale na loxo sàngale na yar mi lépp sàng na lépp suturu na waaye gis nga sama loxo bi bu ma ko beroon xotti ko jasineer sol ko ci ku ma gis da nga xam ne kii dof piir la te yi ñuy natt du nattukaay ay diwa bari mbooloo diwa nangam diwa nangam yooyu amul sens yooyu ay ndénkaan rekk la gis nga nopp dégg lañ ko dégg su mënatul a dégg amul njariñ ay bët xoole lañ ko dénk dañ ko ko dénk moomu ko mais jëmm ji la concerné bu ay bët kee gëmmee fi mu doon nii dootu gis du caagin bët yi moo mooy am jafe-jafe jëmm ci bopp mooy am jafe-jafe parce que moo mënatu dem soo amee problème mu wax yow yaay am problème parce que mënatoo communiquer soo amee problème mu tànk mënatoo dem yooyu ay jafe-jafe la yoo xamante ni cër yi lay doon yooyu mooy yi ñuy gàllankoor yooyu lañu war a dindi ci suñu biir fas yéene doon njabootuk Sëñ Tuubaa sàppe ci gannaawam di déglu ndigal te jëmmal kër gi loolu rek la kilifa yi kër gi bëgg moo tax suñu Ahmad sampoon lii ngir bañ mu doon ab structure boo xamante nay gàllankoor nga naan man damaa bokk fee mënumaa bokk feeg yooyu moo tax amul sax ay carte ndax doon nañ membre yi sëñ Moussa ba pare nun ñu nga xam ne sëñ Moussa yi suñ buntu sëñ Tuubaa ñun ñëpp doon nañ membre yi daayira ba pare soxlaatul ngay wane aw carte ñu door a xam ne bokk nga déedéet bi nga joxee sa bopp ku bokk ci kër gi nga bokk nga doon membre léegi li ci des kay mooy jëfe ndigal ak ñàkk jëfe ndigal léegi moo taxoon ñu ne léegi nañ wut ay reçu bëggoon taalibe bu ci nekk at mu jot nga dagg ko muy 1680 ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn nga def ko addiyee sëñ Moussa te ci bis bi ñu jëm dong lañ koy dugal. tool àllarba dong la yi ñu daan bay ci àll bi moom lañ formalisé def ko soo mënul 1680 yi mënoo ko dagg benn yoon ñu ne la léegi kaay weer wu dee cent 140 francs ñaar fukk ak juróom-ñett par weer at mi mooy 1680. mu doon àllarbay sëñ Moussa ñu delloo ko ci liggéey bi ngir jëmmale ko sëñ Moussa na ko sunub ànd sëñ Moussa nag ne woon na sama mbaar mii ku yaakaar ni saw jën a ko yan seppil saw jën te dem mbaar mi suñu borom def na ko ba pare tëddeetu àgg suuf ndax daana wax ni lépp loo waay am ci sëñ Tuubaa ba nga koy liggéey maag yow a ko ànd ba pare nag ma ëppalee leen njuréel gi kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax cent quarante yooyu itam fi ñu ko jële mooy sëñ Touba ci ak mu jëm bi muy santaane jumaay Touba ji daa fekk ca déwén sa maam Thierno Birahim ñëw fa jox ko ñaar fukki junni ak juróom-ñett addiye sëñ Touba dénk ko soxna suñuy wax Awa ci bëkk néegu sëñ Touba bu jigéen la woon bu ne ca kër ga yori bunt ay nit di fa jaare di dem ci sëñ ba mu amee at tubaab yi xamal ko ne ko jumaa ji nga bëgg mën nañ laa may autorisation bi parce que mosu ñoo xam sa bëgg waaye nag tubaab moom xamul tool bu ñuy bay te ñorugut xamul àllarba ju ñuy dajale te ak séegut lim xam mooy da ngay ubbi compte banque dugal ca xaalis ñu tàmbali liggéey bu la jeexee ñu arrêté ba nga dajale waat ca lañ ko may autorisation mu ubbi compte banque léegi war a dajale bu xaalis ca la sëñ bi wàññi loo lim boobee mu joxoon soxna Awa Sarr muy ñaar fukki ak juróom-ñett sëñ Tuubaa kon ku joxe ñaar fukk ak juróom mooy sa njot ci sawara mu jëm ci liggéey boobu yi maam Thierno ni ko ndax manees na koo yaatal sëñ Tuubaa ni ko ba kiri koro mën na faa dem ku ngeen yéene jàmm daani ku ko mënta joxe ku yor sa kilifteef na la ko ba joxeel boobu ko mënta joxe ku yor sa kilifteef moo la koy joxeel ca lañ dajale juróomi million dugal ko ci banque bi bi sëñ bi nelaw loolu la fa bàyyi fekk tubaab bi am na ay laxas yum ca def ba jot caa sànq tuuti waaye bi sëñ bi dem xaalis ba jeexut ma nga fa asalaamaaleykum wa rahmatullah barakaatuhu sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci teewaay bi di la bu baax a baax di nuyu mbokk yi fi teew yépp mbokki jullit yi ak mbokki taalib yi fi teew yépp ci turu sëriñ Ahmadou Maxtaar waaye mënees naa wax ne turu sëriñ Mouhamadan mi ndax moo ko fi nekkal ndax lépp léppi sëriñ Tuubaa la ci tey moo fi taxaw taxawaayu Cheikh Cheikh Moustapha ñu ngi leen di sant bu baax di am mbégte mbégte mu rëy ci yéene ju rafet ji ak pas-pas bi ko lal ba mu jur jataay bi muy jataay bu am solo di jataayu jullit di jataayu taalibe muy jataayu fàttalente ak soññente waaye sëriñ bi li fi ma toon wax lépp mbokk yi wax nañ ko rawatina sëriñ Amadou njaay mi fi jàll léegi mu mel ne samay kàddu dama koy jool ci ay sant rek ak ñaan sant yi nag ginnaaw bi ñu la ci jiitalee ñu ngi koy teg ci sa loxo di sàkkit ñaan nga ñaanaa noonu lu sa njaboot gi fi nekk muy sëriñ Abdou Khader ak Serigne Khadim ak seen bokk yi fi na yépp di la xamal ne seen nekk ak yow it sëriñ bi yëg na ko rafetlu ko ñu demee ne ñu demee ne ñoom ci yow ñépp sëriñ bi mi ngi lay fobaat seeni loxo di ko teg ci sa loxo di xamal yaa yaa fii seen lépp te sàkku nag ginnaaw bi ñu la ñaanalee gudd fan ak wér di rafetaay rafetal sa taxawaay ci lislaam ci senegal gépp waaye rawatina gox bii nga nekk ñi ngi sàkkoo ñaanal leen ñoom it yàlla bàyyi leen fi ñu gudd fan ci wér te yoon wi ñu nekk ñu gën ci xóotal gën cee jubal waaye yàlla yëkkati leen ci defal leen ci ay ndam ndax ndamul yoon wépp la ñun de fee ñu nekk wax dëgg yàlla amuñu lenn lenn lu ñuy jaaxle ci gox bii wala lu ñu tiit tax xam nañ duñ fi yàq te luñ mën def ci defar dañ ko def defar nag dafa jafe ca metti kon sëriñ bi loolu laa amoon rek ci li may wax ci li ci des li ci des nag muy sunu mbokki taalibe yi muy jataay bii nga xam tey ñoo ko waral jataay fàttali konte la sëñ Axma fàttali nañu li ñu war a xam lépp jataay soññente la soññ nanu nun ñëpp ñu xam ne diwaanu muridina sëriñ bi ba mu koy santaane dajale ay àddiya rekk taxutoon dafa bëggoon lu jëmmal Cheikh Moustapha ci Daaru Xudus dajale taalibe yi ndax njaboot gi ci boppam mosu ñoo tasaaroo waaye nag lu tax taalibe yi xamante lu tax taalibe yi mën a duggante mën a dimbalante ba war ma ak yërmande ji war a dox seen diggante ñu war ko mën a dund ci dundal ko jiite ji loola ba mu amee ñu wax ne nañ seet li nga xam ne ay jeexital la yu seex Moustapha bàyyi yenn yi sax jóge ci sëriñ bu mag bi sëriñ Tuubaa lañ koy wooteel ci sëriñ Tuubaa du ko ñu fàtte waaye nag bis boobu dafay am jeexital ci bépp jullit ci bépp nit sax laay wax boo xam ne yëg na sëriñ bi jeexital gi mu war a am mooy fàttaliku xam ne bis a ngi ñëw ñun ñëpp dañuy soxloo taxaw di ñaan waaye bis a ngi nii boo xam ne kiñ gën a yaakaar ginnaaw Nabil mustafa moom lañu war a taxaw tey xool lim gënoon a bëgg ñu di ko ko fàttali ko muy alxuraan ak xasida ñun ñëpp ñu tuubaat delluwaat ci sunu borom ca kenn ku ne soxla woon na saa su ne muy fàttaliku sunu borom ak a jéglu mu mel ne kon ñëwin wi luñ war a jàngale la ci xale yi ak mag ñi nga xam ne xëy na dañoo umpale taxawaay boobu nag diwaanu diiwaanu muridin rek moo ko def ndax diwaan mooy njabootu Cheikh Moustapha ñoom la ñuy woo ñooy wuy ji ak bokki jullit yi nga xamante ne xam nañ bis bi ca na mu ca dem ku ci ñëw it ñoo lay dalal ñooy ànd ak yow liggéey bi kon loolu moo yitte ji ñu waxit ne di su ci teg kenn kenn lu mu mënul ndax kenn ku ne fa nga ne di fa liggéeyal yàlla yaa nga fay am looy tegoo ci jamono neexul moo waral ñaar fukk ak juróom-ñett yi nga xam ne ca cosaan la woon tey bu fekkonte dañ koy xayma xaymawaat dana ëpp loolu fopp di dem waaye ñu ne nañ barkeeloo tur woowu nga xam ne ci sëriñ bi ci boppam moo ko joxe woon. mu mel ne ni mbooloo mi toll nañ ñu xam ne bu ñëpp maase woon di ko joxe lu baree baree bare ci liñ nësaloon a def danañ ko man loola nag waa Louga buñ amee yitte ju toll ne wax na ñoom dañoo bëgg a dajale seen bopp ci njaboot gi ñu waxtaane loolu loolu duñ man lu bëgg ci sëriñ biit am ci contentement lool bëgg ci lool yokkit yaakaaram ak it nag di leen ñaanal ñu jàpp na lii nag ab tàmbali la waaye ñi mel ni yéen ñëpp ci gox yu fasantikoo ci Sénégal dañ taxawal lu mel nii ndax lii jëlale na jataay bi ngeen toog di jisante sëriñ bii di sëriñ Mouhamadan ñëw teew fii njabootu maam Cheikh Ibra Fall nekk fi ñëpp ah say doxin yëpp ñëpp rafetlu nañu ku bëgg lu baax ku ne rafetlu na sa doxin ndax kenn nattabliwut ki nga doon waaye nag jataay bi rek wane na ci lu bari ñu ngi lay jégalu nag di sàkk yi nga ñaanoonu ñi ngi àndoon ak sëriñ sëñ Abdoulaat mii sëñ sëñ Aliou mooy waajuram xam naa mën nga am xëy na li ngeen di gisee du bari waaw rakk sëñ Cheikh Aliou la rakk sëñ fii nag taalibe yi daal xurus yu bari daje nañ fi waa kër sëñ Ibra ab sutoo ngi fi ñëpp ngi fi macha allah bi ñu ñëwee kon sax njaboot a ngi nii ah ñu jox la rek bu fekkee am na loolu nu mën a yokk nga yokk nu ko bu loolu ñu tàllal loxo yi nga ñaanal nu rek luñ si am jël. asalaamaaleykum wa mbokk julli fi teew sëñ Mahmoudane mi ngi leen di nuyu nuyu islam boobu. nee mi ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi. nee na daanaka sëñ usmaan Pakke li mu wax doy na sëkk. nee na sëñ Ahmad Ndiaye ngiraan tamit li mu wax doy na sëkk. nee na daanaka loolu mooy solo jataay bi nee na ginnaaw biñ ko ziyaare di ko dalal di ñaan yàlla wéral ko guddal fanam nee na moo ko rakkam yeeg doomam yeeg taalibe yi fi teew yépp lay taxawaay bu rafet bi nga xam ni sëñ Abdou Khader Mbacke mii ak sëñ Xaadi Mbacke mii taxaw nañ ko fii ci dëkk bi. nee te leen war ci islaam ak ci mbokk gi ak ci taalibe yëpp ñu ngi koy def ba def lu ñu mënul. na mi tamit ñoom taxawaay ci moom nga xam ne lu xew rek dañ ci taxaw taxawaay boo xam ne ci am kersa sax ngir jëmmi sëñ bi rek neen loolu lépp jëmm sëñ bee tax neen loolu mu ngi la koy seedeel nee na mi ngi sàkku ngeen ñaanal leen bu baax yàlla wéral leen guddal fan te àggal seen yéene ndax yàgg gi fi ñu war a yàgg nii sag la ci islam bi sag la ci ñépp di sag ci mbokk yi nee na nee na lii lu ñu waroon def la ay ci at yëpp ci at mi ay yoon yoon ndax jataay bi jël nañ fi loo xam ne neen lu bare bare dana xew te duñ xam cosaan li